jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ba tey ñu ngi fii ci Mariste ànd ak sëñ Basiru borom mbég mi hectare mi euh, ca wasaare làmb ba tey euh, ginnaaw làmb moom mënuñu koo baax te nekk na sport boo xamante ni képp ku koy dund namm nga ko waaye gis nga jaam ak pexem yàlla ak dogalam sëñ Bas maa lay nuyu di la siyaar di la màggal. waaw Baye Djily maa ngi lay nuyu di la ziar yooyu di la màggal di nuyu mbokki internet yi ñuy suivre yépp ci wasaare làmb di leen di jaajëfal ci ànd bi ñuy ànd ak ñun saa su nekk di nuyu ñëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg fi jàmm sax fi dàkk jàngoro ji nga xam ne dugg na ci dëkk bi di ñaan borom bi mu jële ko fi ci ni mu gën a gaawee mu bañ a lor kenn di jaale euh, sunu papa Pape Diouf mi nga xam ne génn naa du ni ki mm-hmm. démb. Mm-hmm. di ñaanal njabootam yal na ñu am muñ. Mm-hmm. di ñaan rek na fi yem. doomi réew mi doomi réew mi la de daa mel ni dégg nañ kenn ci doomi réew mi koo xamante ni ku mag la génn na àdduna ci feebar bi di Covid 19. waaw moom la moom la moom Pape Diouf la euh, doomi réew mi la sagu réew mi la it. Mm-hmm. Euh, ndax euh, képp ku nekk ci réew mi te yëngu ci sport rek gisoon nga apport bi nga xam ne nii apporté woon na ko sport bi. Mm-hmm. rawatina lii di football am ay jeunes yu bëri yoo xamante nii bu ñu seeni objectif Eh, ci moom la ko yàlla jaarale mm-hmm. eh, ñu ci bari mu teete leen jàppale leen doon seeni agent liggéey ci ñoom lu bare bari mais liggéey ci réew mi aussi lu bare bare bari muy ci wàllu sport muy ci leneen ak leneen donc euh, kilifa la goo xamante ne nii Sénégal yëpp nag ku ci nekk mën nga koo jaale sa morom parce que ñëpp mm. ñoo ko ñàkk. Mm. donc ñu ñaanal ko rek fa mu jëm gënal ko fii mu jógee te suuf sedd ci kaw amin amin yàlla na ko yàlla yërëm tax xare ko àjjana suñu papa Pape Diouf boobu euh, fële mu jëm yàlla na ko dàqal fu fii mu jógee euh, darajay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ Bass ñu dugg ci xët gu njëkk ji suñu làmb suñu làmb mardi 31 mars 2020. ñu ngi wax ci diggante kii nga xamante ni mooy suñu papa ko Nicolaï mi nga xamante ni caabi da ko féete ginnaaw dañ koo ñaanaloon liberté totale ah. Mm-hmm. waaye dafa mel ni eh, bàyyi boobu daa mel ni antuwut de sëñ bas waaw euh, bàyyi boobu antuwut. Mm-hmm. Euh, donc euh, mbir la boo xamante ni tiis la. Mm-hmm. naqar la encore ci axlu làmb gépp ndax ñu ngi doon xalaat. di sàkku ci njiitu réew mi mm-hmm. mu boole ko ci ñi muy gracier mm-hmm. ndax bu ñu fàtte ne fan yee rek gracier nañ plus de deux mille mm-hmm. euh, prisonniers yoo xamante ne nii ñu ngi woon tey ci ci ci ci ci ci kaso bi euh, président gracier leen te ñu ngi jëm ci 4 avril aussi ñu amoon yaakaar ne dina am ñeneen ñu mu gracier ci loolu mooy avocat dugaloon benn demande de liberté totale pour que ñu gracier ko ba mu delluwaat ci njabootam mais delluwaat aussi Euh, ci ci ci làmb ci ay activité mm. parce que xam nga làmb yàgg na koy jooy depuis arrestation ba léegi nit ñi mm. ñu ngi koy jooy euh, bu ñu sañoon suba suba suba mu wala tey tey tey mu dellu siwaat ci ñun parce que am na mm. fi cër donc demande boobu noonu gis nañ ni rejeté nañ ko li waral ñu rejeté ko mooy c'est simple parce que euh, tribunal wala cour d'appel bi nga xam ne nii fa la ñu dugal demande bi ñoom nee nañ dañoo incompétente waaw lu ñoo incompétente mooy cour d'appel bu Saint-Louis donc ñoom seen compétence mayu leen pour ñu tranché ci mbir boobu euh, comme si rek ma laaj la loo xamante nii amoo cëram mënoo cee wax wala mënoo cee àddu wala mënoo cee def noonu la demee donc ñu rejeté demande boobu nga xam ne nii demandé woon nañ ko euh, pour liberté totale bu Luc Nicolaï mais nag axlu làmb bu ma yeboonee bu ñu ñàkk yaakaar nañu continuer di ñaan parce que loolu benn la rek ci xeex yi comme que dugal nañ foofu demande ñu bañ ko donc comme amuñu compétence bi ñi am compétence bi nañ jàll foofu rek étape supérieure bu ko defee ñu jéem a sàkku à ce que ñu libéré parce que aussi Sénégal soxla na hmm. hmm. ñuy ñaan rek suñu papa Luc Nicolaï yàlla na ko suñu borom génnee fële mu nekk ñaan président de la république rek mu dugal ci loxoom ak képp koo xamante ni mën na cee dugal loxoom ngir boo waxee suñu borom dogal loolu yàlla ñu lay ñaan di la tàllal loxo ñun waa njañu làmb ndax suñu papa Luc Nicolaï moom làmb soxla nañ ko. Euh, sëñ bas ñuy ñëwaat ci suñu làmb xët gu njëkk yi ñu gis ci ki nga xamante ne mooy Mbaye Diouf bu Bawol Mbaye Diouf nag. bëri na ak Balla Gaye 2 bëri na ak Baye Mandione rek doy na ci palmarès. sama xel dem na ci tàkkusaanam ba mu bëri woon ak Baye Mandione boobu maa ngi nekk xale bu ndaw waaye sama xel dem na ci tàkkusaan bi nga xamante ni bëri woon na ko ak Balla Gaye 2 Mbaye Diouf wax lu bari ci làmb ana lu wax sëñ Bass. waaw Baye Djili euh, tudd nga ko champion la parce que ku bëreeg Balla Gaye 2 rek euh, kooku champion la. parce que champion mooy def nit champion. Mm. donc euh, carrière u Balla ñu mentionné la ci. Eh, soit nga bëreek moom mu daan la wala leneen ak leneen lu mu ci mën di nekk rek loolu eh, mën nañ ne eh, champion la mm. te wone na ko aussi ci carrière am dégg nga li mu wax ci journal bi depuis mu bëre ak Alioune Seye Junior ba léegi bërewaatut bi mu amee défaite ci Alioune Seye Junior ba léegi amaatut combat mm. donc mu nekk situation boo xamante nii xaw naa compliquer ci moom mm. mais nag ci mbër yi mel ni moom yépp nag parce que jii li gis nga làmp mën nañ ne amul assurance lamb amul assurance bu waxuma assurance nag comme assurer mbër mi wala assu assurer euh, promoteur bi wala leneen maanaam assurance sportive bi may wax mooy tey mbër mi ak malgré carrière bu mu mën di def mënu koo yóbbu fenn carrière bu mu mën di def mënu koo yóbbu fenn da ngay gis mbër moo xamante ne nii mën naa bëre dix combats dix victoire dal ci beneen combat am défaite rek nit ñu commencé laa fàtte comme si mosoo fee def dara. mën nga toog ay année blanche yoo xamante ni da nga koy tegale wala dootoo mën a am combat wala doot assurance boobu waroon a am ci làmb ba tey di primer les meilleurs. Mm. di primer ñi nga xamante ni ñu ngi def parcours bu baax ñu ngi def carrière bu baax loolu malheureusement moo amul ci làmb. Mm. ñu ngi nag invité à ce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite làmb ji ak ñi ci mën a xalaat ñu xalaat ci loolu ba tey mbër mi nga xam ne nii def na carrière bu rafet def na parcours bu rafet mën au moins am benn niveau boo xamante ni dana fa àgg. ba euh, wutale ko ak ñeneen yi nga xam ne ñooy soog a door wala ñeneen ñi defut li mu fi defut parce que keroog wax nañ ko la cas de Bathie tey Bathie Seras boo xoolee li mu def ci làmb ak situation actuelle mm-hmm. da nga naan kon parcours bu rafet lan lay jariñ mm-hmm. dara jariñatu dara te te sport bu demee ba nit ñi côté business bi la ñu gën a focaliser wu de trop ba côté carrière ak côté parcours ak yooyu yëpp côté performance yooyu yëpp ñu ñu ñu bàyyi ko ci suuf bu boobaa aussi sport boobu Euh, pour mu nax saay day yomb donc loolu aussi nañ ci nañ ci nañ ci bàyyi xel situation bi mu nekk moom la mbër yu bari nekk am nañ ay combat am ay victoire am benn défaite dugg ci saaku yi mënatunoo génn amatul kenn ku leen tàllal loxo promoteur ñëwatul ak leneen ak leneen donc problème la boo xam ne ni mu koy dunde noonu la ko yeneen yeneen i mbër di dunde mm-hmm. ñu koy naqarlu aussi di ko ñaawlu mm-hmm. parce que ku mel ni Mbaye Diouf ci mën bëreem ci ci mën a xeexam ci mën bis wax dëgg doonul koo xamante ne làmb war nañ ko mën a fàtte te fi mu toll nii daa mel ni xale yu ndaw yuy jug ci làmb dañuy dañuy xaw a fay mag ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci làmb parce que duñ ay mag sax. mën naa ne daanaka duñ ay mag parce que ku mel ni mbay juuf duggul ci yaa jàpp ma ni dugg na ci 40 ans am. non tey am na loo xamante ne. Mbaye hmm. Diouf juuf Diouf du mag. Hmm. Mbaye Diouf du hmm. euh, mooy li ngay wax rek gis nga jeune espoir yi. li ñuy fayee mag ñi. nekkul ci doole nekkul ci mën a bëre mm. nekkul ci am xel mu rëy ci liñ leen di fay mooy ci popularité mm. tey da ngay ñëw nekk benn jeune leader boo xamante ni bi nga génnee yàggul ngay dressé benn euh, popularité boo xam benn foule boo xam ne mu ngi topp sa ginnaaw promoteurs yi loolu la ñuy teg bët mais du mbër mi du performance mbër mi du niveau bi mbër mi nekk mais du doole ci aussi doole ji nga xamante ni moom la ñu xool ci moom mooy doole mobilisation bi. parce que gis nga fi ay xale yuy bëree grand combat bu làmb doon dox dëgg dëgg dëgg boo xoolee troisième spécial sax du nu ko bëre parce que gabarit bi mayu leen ko doole ji mayu leen ko donc niveau bi aussi mayu leen ko mais da ngay gis léegi benn xale day génn même pas deux semaines mu bëri ji grand combat parce que waaw bien mu ngi noonu mu ngi noonu parce que dafa am poids bu muy peser boo xamante ni popularité bi moo koy permettre tey lu mu tàll loxoom ñu jox ko ko te làmb war nañoo gën a réfléchir ci côté boobu certes popularité bi baax na ci trop parce que mooy tax promoteurs yi di ci génn ndax secteur privé lañu mais aussi ñu mën ay réflexion yoo xamante ni dana permettre popularité di am ci làmb ay nit di ñëw ay promoteur di tëgg di ci génn di am xaalis mais teewul aussi le meilleurs ñu leen di primer à travers des combats à travers tey euh, ay actes yoo xamante ni bu ñu ko tegee ñoom danañ ci gis seen bopp mais nekk champion ba pare mënoo bëre ay gone yu ndaw juddu ki démb ëpp la mbooloo tax ñuy bëre di bërewaat sa kaw donc te mbooloo nekkut loo xamante ni athlète bi moo koy wutal boppam mbër mën na wutal boppam doole mën na wutal boppam mën a bëre mën na wutal boppam staff bu baax mais mënta wutal boppam mbooloo public yàlla moom moo koy jox nit da gis koo xamante ni nit ñi dañu lay bëgg sans sans sans sans xam kii lan moo tax ñu bëgg ko mënuñoo expliquer sax diw lan moo tax ñu bëgg ko lan moo tax ñu topp ko pourtant bëri na fi gone yoo xamante nii boo xoolee mbooloo yi topp seen ginnaaw mais bëre ba taxut dafa guñ fi loo xamante ni war na tax mbooloo mu toll na di topp seen ginnaaw. su ma ñëwee ci làmb ji sëñ Bas gis mbooloo mi xale yi di àndal dama naan ay chaise ak baas ku ne mën na koo luye waaye nit kenn mënu koo luyee liñ lay toppee sax xamuñu ko ñoom. borom bi rek moom moo koy def donc loolu warta nekk benn affaire boo xamante ni dañ koy collé motif yenn mbër yi ba tax ñenn yi duñ leen mën a tëgg parce que amuñu public te demoon nañ fi ci l'an 2000 mu wax ñu la même chose l'an 2000. mënoo tudd champion yi génne ko ci mu ngi noonu mais xoolal lan moo tax ay kombaam di am espace boo xamante nii mooy lool parce que public bi mu war a am amu ko te promoteurs yi loolu la ñuy xool donc ñoom aussi wax nañ dëgg parce que xaalis la ñuy soxla ci kii ku kuy liggéey ku ne bëgg di ci gis avantage mais nañu xool waxtaan de telle sorte que tey loolu dana am te du tee aussi dinañ mën a primer les meilleurs. Hmm. jërëjëf sëñ Bass euh, ñu ñëw ci keneen ki mi nga xamante ni mooy doomu mbër la doomu mbër na bu ñu ko waxee muy yuusu nduur bu père Balla Gaye Youssou Ndour nag euh, carrière am ci làmb fi mu toll nii dafa mel ni euh, njort nañ ni mën naa doon champion lépp lu papaam ñàkk ci làmb mën na ko koo indil waaye suñu làmb lan la wax ci moom ci journal waaw sunu làmb li mu xamle mooy papaam sax moom moo wax pappaam moom moo wax parce que li mu xamle mooy am na yaakaar ci Youssou nduur Youssou Ndour mën na nekk champion donc euh, na ko promoteur yi gëstu mbër yi jël ko mu wone boppam parce que moom wóor na ko ne bu wonee li nekk ci moom rek euh, nit ñi danañ gis un vrai champion mais aussi foofu li may wax rek bàyyi ji li pour euh, commentaire bu ndaw mooy li valable ci Youssou Ndour moo valable ci yeneen champion yi gis nga mbër boo tegoo fi nga war a tegu yàlla soxorut boo defee li nga war a def waa lu ci yàlla allah kulli alin sa biddiw dana fenk comme ni ko gars yi di waxee parce que aussi gis nga sport du du du fen ñu baal ma ci kàddu gi euh, kiy liggéey te yàlla tax di liggéey parce que dafa am objectif dafa am ay principe bokkul ak ki nga xam ne ni situation moom moo tax muy liggéey mënuñoo bokk ki am ay principe à chaque fois tey finalité ba moom mooy mujjee nekk champion gis nañ ko fi ci ay mbër yu bëri Eumeu Sène bi muy nekk ci ay tolof tolof teggiwu tànkam mu ngi doon continuer di liggéey parce que amoon na ay objectif amoon na principe mais gis nga roi des arènes munoo tudd ñi jël roi des arènes tudd ci Eumeu Sène Modou aussi bi muy ñëw lan lañ doon wax jëmm ji tollut noonu kii mënta nekk sampion parce que nangam nangam commencé di focaliser wu ci ci ci ci ci ci physique am ah ci ci ci ci ci ci ci taayam mais gis nga am principe am gis-gis am euh, fenn fenn fu mu teg bëtam moom moo tax mu àgg fa donc bari na ay champion yoo xamante ni fa ñuy teg seen tànk fa ñuy teg seen bët di liggéey ngir loolu dañu fay àgg donc c'est valable pour yeneen mbër yi Youssou Ndour même bu papam bëggee mu nekk champion te moom gëmul ne dafa war a nekk champion aussi du ko nekk du sotti doon doomu mbërëg doon jarbaatu mbërëg doon euh, kiiwu mbërëg ci bokk yem da cay fekk loxoy boroom dafa am loo xam ne nag sens la ay opportunité la yoo xamante ni yàlla da koy jël teg ko sa loxo nga nekk doomu mbër day tax yow difficulté yi sa papa amoon bi muy bëre mun nga caa ñàkk a jaar parce que da lay teel a avertir teel laa xamal ni la man kat fii laa jaar ba sama carrière xaw a sooxe nga teel ko teggi loolu avantage la doon doomu mbër aussi avantage la ci benn côté parce que ñépp dañ lay xoole étiquette boobu kii doomu mbër la kon forcément dafa war a mën a bëre te forcément dafa war a mën a bëre boobu moom moo war a tax tey mu nekk benn mbir boo xam ne dana la pousser à que nga liggéey lu metti à que tey nga def lu maximum pour yow fi sa papa sa tànk nga dépassé foofu parce que dañu naan doomu mbër la rek dafa war a mën a bëre kon yow déjà def nañ la mbër nga mën ak nga ñàkk mën def nañ la mbër mais boo bëreewut boo deful li nga war a def dañuy naan dafa ñàkk fayda wala fa ñàkk joom dafa yaafuus mais pourtant mbër la ndax doomu mbër la donc. Youssou Ndour bu tegoo ci yoon wi mu war a tegu gëm ne moom sampion la war a nekk soril vision xam ne man mii kat yoon wii ma nekk nii yombul parce que am na sama ñeneen i ñeneen i moroom yu ci nekk bëgg a réussir comme man naa def nii naa def nii am plan de carrière am aussi benn staff boo xamante ni dinañ ko suivre xool fi ay avantage am nekk ñu ko fay orienté dana nekk champion mais bu amut loolu aussi papaam lu mu bëgg bëgg bëgg mu nekk champion aussi mun nañ koo doxal ñaar fukki ci benn saison. te affaire yi du sotti en tout cas ñu ngi koy invité à ce que mu xam ne champion da ngay eh, topp ci yoon wi liggéey li nga war a liggéey am ñenn ñoo teg sa bët ne ñooñu danaa àgg ci ñoom ci diir bi. respecte sa bopp. kese sakkanal sa bopp. moom mooy mooy mooy warugaru athlète loolu mooy warugaru athlète gis nga jiili euh, sakkanal sa bopp récupération gàttal sa tànk gàttal sa làmmiñ loolu yëpp staff moo koy imposer mbër xam nga dund dafa dafa dafa neex ku ci nekk boo sañoon nga nekk ci confort ku ci nekk boo sañoon tey même bu ko nit ñi xamul sax nga làqatu def dara loo xam ne kenn yëgul wala leneen ak leneen donc ay mbir la yoo xamante ni moom ak suñu dund moo ànd mais tey staff bu baax staff bu dëgër moom mooy imposer mbër à ce que tey mu dund li mu war a dund parce que yenn yi day neex nga bëgg koo def ñu teg ci seen tànk wala teg ci yet wala teg ci leneen ne xañ la ko ba ngay réussir. donc loolu moom moo tax ma ne bu amee staff bu baax boole ci liggéey am principe fi mu bëgg a àgg dana fa àgg mene bu dul moom sax beneen mbër bu dul bu dul Youssou Ndour bu defee loolu teg tàngam foofu noonu fu mu bëgg a àgg dana fa àgg. message la boo xamante ni képp kuy mbër bëgg dara ci làmb war na ko mun a jariñoo. du Youssou nduur kese jërëjëf sëñ Bass euh, am keneen koo xamante ne suñu papa ci làmb euh, muy Père Mbaye Guèye bu Faas mu wax ci diggante combat Siteu ak Papa nee na moom cinquante cinquante la gisee combat boobu maanaam ku ne mën naa daan sa morom. waaw Père Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, donc moom sage la euh, làmb moom dañ koy delloo njukkal à tout moment ba même bu defee erreur sax. mën nañ ne dañuy bàyyi mu sedd parce que léegi dafa jëm mag mag la mais moom franchement euh, kàddu yooyu man du du ko xaar ci Père Mbaye Gueye parce que li tax duma ko xaar ci père Mbaye Guèye mooy euh, dafa dafa da doon manager euh, Papa Sow manager nag waxuma ne manageru Papa la woon mais boo bokkee ci staffu nit rek ci manager am nga bokk waaw ci ñu koy manager nga bokk donc moom moomu da doon manager Papa te période bi Papa Sow jëlee combat bi mu ngi woon ci ay tànkam mu ngi woon ci keppaaram te période boobu bu nu ko laajoon pour mu analyser combat bi ce qui est sûr certain mooy du ne cinquante cinquante. de Papa Sow ëpp doole moom man moo dàq bëre. amul lu Siteu di am ci combat. très bien si. donc bu Papa génnee écurie Fass moom mu war a def analyse ne analyse bi may def kat dama naan cinquante cinquante la euh, reconnaître mbër mu ci nekk li mu am. man dama naan kàddu yooyu moom franchement xaaruma ko woon ci Père Mbaye Guèye euh, li ma doon xaar ci moom euh, mooy tey analyse bi. mu joxe ay fooru Siteu comme ni mu ko defee ci biir journal bi joxe ay fooru Papa Sow limité wu ci foofu bañ a bañ a bañ a ne diw ma ëpp sens wala diw wala ñoom ñoo tolloo ay sens parce que certes li mu wax nii. mën na nekk la réalité. mais ñeneen ñi duñu ko gisee noonu. ñeneen ñi aussi dunu ko jàppee noonu. parce que réalité bii nii bu doon Papa mu ngi ci keppaaram ba léegi même bu dee réalité aussi dana ko nëbb. du ko wax donc nit ki li nga koy nëbbal bi mu nekkee ci yow. même bu jógee ci yow aussi continuer di ko ko nëbbal. man loolu loolu loolu laa gëm. mais taxut nag ma ma euh, collé ko motif ci wax ji cinquante cinquante la parce que gis nga combat boobu bàyyi jiile. mënta nekk cinquante cinquante. muy Siteu di Papa mënta nekk cinquante cinquante. nit ñi dañoo tàmm di wax cinquante cinquante ci combat mais man li ma koy gëm bëriwut. parce que xam nga moo tax. tey Siteu boo xoolee plan de carrière am. bokkut ak plan de carrière bu Papa bokkuñu fi ñu jógee bokkuñu fi ñu jëm ñaar entourage yi bokkuñu mbër yi ñu taseel bokkuñu objectif yi bokkuñu vision yi bokkuñu donc mbër yooyu noonu bu fekkee dafa am ay ay facteurs yu baari yu leen wutale mënuñoo bokk ay sens ci combat parce que Papa am na lu mu ëpp ëppalee Siteu ñëpp teg ci seen bët Siteu am na lu mu ëppalee Papa Sow ñëpp teg ci seen bët donc mënta nekk cinquante cinquante cinquante cinquante mooy ma yaa ak mbër mi yéen a war a tolloo doole ci xayma yéen a war a tolloo xam ci xayma. tolloo nombre de combats. très bien. duggandoo ci làmb. ci xayma waaw ci làmb. très bien donc ñaari mbër yi nii boo leen di xayma da nga naan mënumaa jox kii favori parce que li kii def la kee def. mënumaa jox kee favori ndax li kee def la kii def wala leen nga ne ah ñaari mbërikat boo xoolee ci performance yi ñu bokk. parce que ñun amuñu statistique yooyu nga xamante ni danañ mën a mbër mi ba xam mbër mi ci ban niveau la toll doole ji fan la toll expérience bi fan la toll ak yeneen ak yeneen pour mën a xam ne ñaar ñii nii cinquante cinquante la mais foofu j'aurais aimé tey ma ne non Papa Sow kat bu fekkee ne ci parcours moom moo ko ëpple Siteu moo ko ko dàqale bu fekkee ne tey ci ci ci ci expérience combat moo ko ëppale Siteu moo ko ko dàqale mais aussi am na beneen expérience boo xamante ni moom gañe na ko te Siteu gañewu ko muy moom bi mu jëlee comba quitté na écurie dem créer benn écurie boppam Siteu ba mu nekkee Siteu ba léegi ci benn écurie la nekk donc dundagut ay xiiro ak ay ŋaayoo te Papa xiiro xiiroo ŋaayoo bi mu dund ak waa Fass am na leneen lu muy dolli ci moom ba tax lépp lu mu doon def benn mën naa yokk lépp lu mu doon xalaat pour am ndam mën naa yokk parce que lee am na leneen lu mu koy jàngal am na beneen expérience bu mu dundaat ci diir bu gàtt donc foofu ay sens mën naa ëpp yu Siteu mais Siteu aussi mën da koy ëpp sens parce que Siteu ba mu nekkee Siteu ba léegi jógul ci écurie amul ay xiiroog ay ŋaay ñu ko doon encadré ñoo koy encadré chaque jour combat bu ñëwee bu ñu ci doon def fukk dañ ciy dolli donc moom aussi am na opportunité boo xamante ni mu ngi ci stabilité. Mm-hmm. mémoire am mën naa ne esprit tranquille lay doxe parce que xulawut ak ma sàmb xulawut ak ma dem ba ñu ko doon topp ñu ngi koy topp ba léegi. Mm-hmm. donc moom aussi am na beneen sens boo xamante ni da koy ëppale Papa Sow boo xoolee ku ci nekk dafa am looy ëppale sa moroom. Mm-hmm. mais nekkut ne ñoom ñaar dañuy tolloolee cinquante cinquante ba combat bi bu arbitre sifflé. Euh, doone Papa mooy daan wala Siteu mooy daan man cinquante cinquante li ma koy wax mooy euh, chaque jour bu ma déggee nit analyser cinquante cinquante rek dama ne dafa daw ay responsabilités mm-hmm. Mm-hmm. dafa daw ay responsabilités gis nga technicien doo bañ a daanu doo bañ a daanu da ngay analyser li ñëw ci sam xel mm-hmm. boo analyser li ñëw sa xel nga ne noo combat bi kat Siteu moo ëpp ay sens. jeex na bu ñu la laajee nga décortiquer moo ay sens du mooy daan. mu ngi noonu Sénégal nag ñu bari loolu lañ dul xam. diw moo sens du caagi ni diw mooy daal. Ah, parce que boo xoolee li Papa Sow def ci làmb Papa Sow ku bëreeg euh, bàcc seeraas. bëreeg Jos ñaari yoon daan ko bëreeg Lac de Guiers 2 bëreeg Ama balde boobu foofu nga jaar si te jaarut foofu. si te nag xale la boo xamante ne mu ngi ci yoonam di def ay jéego jëm ci kaw. mais combat bi mënul doon risque ci Papa Sow. ndax bëre naa ak ndaanaan bu ne ci làmb bis bi mënul tuuti ci moom waaye Siteu tamit dafa nekk koo xamante ni doon na def ay examen ci combat mais examen yi mu jàll yëpp yii da koo ñàkk mais yii da cee am ndam. parce que bi euh, ku bëreeg Zos am ci ndam nga bëreeg guy gi mu daan la nga bëreeg Zarko parce que premier examen bi mu réussir ci làmb mooy moog Zarko bisam boobu. looloo ko indi tey ba mu mën a bëreeg euh, Zos. Euh, guy gi daan ko mu dëpp jël zos dóor ko mu daanu. duggaat biir parcelle jël ki nga xamante ne mooy Papa Sow mooy mu ngi def jéego jëm ci kaw. mais combat bi boo xoolee ñoom ñaar fi ñu jaar. Euh, parcour yi bokkul ci làmb. sa Papa Sow ndaanaan la ci làmb. waaw mais aussi am na foo xamante ne nii li fi Siteu def. Papa Sow defu ko. parce que au niveau national. si Papa def na fi lu fi Siteu defut. mais tey au niveau international. Siteu participé na ci MMA. yokk na expérience am àgg na ci beneen niveau boo xamante ne nii mbëri bëri ñu ngi rêvé àgg fa nit nekk na roi des arènes te àggoo fa duggagoo compétition internationale donc moom comme àgg na ci compétition internationale moom aussi au plan international liggéey na fa loo xamante ni Papa Sow liggéeyagu fa. Euh, sëñ Bass ñu ñëwaat ci benn beneen xët bi euh, bii mu ngi def ki nga xamante ne mooy Onde le Fou ak écurie bi mu xamante ne mooy écurie xam sa cosaan Onde le lu mu wax ci écurie bi mu nekk di xam sa cosaan. waaw Baye Djily balaa ñoo dem rek ñu nuyu waa xam sa cosaan leen xamal ne écurie xam sa cosaan mu ngi nekk fii nii Pikine euh, président Malick ñi ngi moom moo ko jiite euh, donc mu nekk écurie boo xamante ni yàgg naa liggéey ay liggéey yoo am solo ci làmb euh, seen président bi sax d'ailleurs moom moo jiite association des écuries des responsables écurie école de lutte du Sénégal muy ARELS. donc moom Onde le li mu xamle mooy euh, xam sa cosaan dafa nekk ci période bu bu très difficile période bu difficile bi mooy mbëri sérieux ci seen i entraînement respecté tuñu entraînement yi euh, parce que euh, mbëri yi nga xam ne nii ñoom ñoo téye équilibre ba ñooy ténor ya ku ci nekk sa intérêt moom ngay moom rek ngay ngay défendre intérêt bi mooy ku ci nekk combat bu jotee da ngay ñëw préparer ko équilibre ba bu jeexee ji dootoo dootoo dootoo fa ñëw. parce que cité na ko ci mel ni Jordan depuis kombaam ak rëg-rëg ba léegi tegaatu tànkam écurie ba depuis ba ko rëg-rëg daanee ba léegi tegu tànkam écurie ba naaru sokaas depuis ba ko ba ko double moteur ba léegi tegu tànkam écurie ba donc euh, gis nañ aussi euh, sook euh, période kombaam ak gàmmu géey moom la commencé ñëw écurie mu énuméré problème yooyu ne problème yooyu moo tax mu xam le ne équipe ba sérieux amatu fa ba pare euh, président ba sax Malick ñi ngi ñëwatut xamatut lan moo fa xew yëgatut lenn lu xew ca biir équipe ba ba moom dem na ci moom wax ak moom ne ko équipe bi booy sérieux tuñu ak yeneen ak yeneen mais euh, loolu daal dafa mel ni euh, nga wax nga wax nga bind ci ndox loolu lay nirool donc amul saafara amul dara loolu moom moo tax mu génn ci sunu làmb xam leen ne mel. Euh, mais bàyyi ji li mu nekk geste boo xamante ne nii euh, man rafetlu wu ma ko franchement rafetlu wu ma ko parce que gis nga nit ku ci nekk yaay défendre entité bi nga ne nit ku ci nekk yow yaay sagal entité bi nga nekk euh, parce que ñun ñaar bu ñu nekkee wasaare am ay problème interne yoo xamante ni dañuy génn ci mbidi mbedd ma di ko di ko fa régler wala feneen ak feneen bu boobaa du du rafet li gën mooy ñu fexe ba lépp saafarawu man jore aimé sax tey yàlla tere yàlla tere bu fekkoon ne moom Onde le Fou dafa génn écrit bi ñu interpellé ci lan moo tax nga génn écrit bi mu ne nangam ak nangam boobaa d'accord naa jaadu na parce que problème moo am mu expliqué li tax mu jóge fa mais comme mu ngi ci écrit ba am na ay problème interne yu fa am li gënoon mooy ni mu def ci président Malick sol dem ci moom wax ak moom mu def noonu dem ci yeneen ñi nga xam ne si ay mboro ay moroomi mbërëm lañ ay nawleem lañ te ñu bokk écrit bi bokk benn couleur bi ñuy défendre mu toog ak ñoom ku ci nekk mu wax la ñetti dëgg soit nga accepté wala nga bañ a accepté bu boobaa bu jëlee ay responsabilités à que mu génn beru wala mu génn dem feneen wala leneen ak leneen bu boobaa buñ ko interpellé ci sujet bi mu mën cee wax mais du ma nangu nga bokk ci écrit bi écrit bi am ay tolof tolof ngeen war koo régler si biir war koo lijjanti ba mu lijjanti ko mais pas ngeen koy dévoiler ci public bi nit mais sëñ Bass est que mbir Onde la fu war naa mën a jàpp mbër mu ne ci loxo ne ko kaay ci équipe bi nga entraîné. non non non mënu ko. Ah, li mu mën euh, dem bi mu dem ci président bi wax ak moom est-ce que du président moo leen waroon dajale ñoom ñëpp avant muy génn ci presse bi. d'accord xam nga moom xam nga moom responsable la ci. parce que le fait que mu sol dem fekki président rek responsable la te defar moo ko tax a jóg te bëgg na mu defaru mais comme bëgg na mu defaru limité wut sax ci président parce que ñoom mën nañoo def seen pétition dàq président bu doxalut waaw bu fekkee ne li ñu bëgg président defu ko mën nañoo def seen pétition dàq président même staff technique bi tey bu fekkee ne ñoom li ñu bëgg staff technique bi defu defu ko mën nañoo dissoudre staff technique bi yooyu yëpp da ci am yoo xam ne day dépendre ci ñoom bëri ñu jël seen responsabilité donc ñoom mën naa ne ñoom ñooy les vrais acteurs ñeneen ñi dañ leen di gunge moom bu coow bu problème amee lu mel nii bu doon man de damay sol sama daal dem ci on dem ci euh, kii euh, naaru sokaas ne ko booy lan moo tax ñëwatoo entraînement yow depuis ba nga kii ak léegi ñëwatoo entraînement bu fekkee suñ diggante neex na ma wax ko dëgg ma ne sawaay waay man damaa ba wala nangam naa affaire yooyu noonu ma jéem a xool nan laay trouver ñeneen ñu mën a waxtaan pour équipe bi doonaat benn bu ma jógee ci moom dem ci soq dem ci keneen ak keneen mais bu fekkee ne def naa yooyu pas ñoom ànduñu ci loolu may def mais dara ma fexe dajale staff technique bi solution yi du du du du du kii parce que gis nga lii mu def nii certes bëgg na lu delluwaat équipe bi ci yoon affaire yi con waat mais lii du saafara bi parce que lii da nga am ay ay nawle yoo xamante ni waruñu laa xamal mais dañ lay xamal xam ne ah ñoom ondu la foofu kat seen équilibre jàmm nekku fa nangam nang affaire yooyu noonu xas la boo xamante ni moom moo xas lu boppam donc nit ki li nga nekk euh, mu nekk ci ay tolof tolof ñi nga koy gérer mooy nga wax ci ñi ngi ci war a wax def ci ñi ngi ci war a def boo demee nag ba nekkatoo ca buñ la laajee lu la jëlee bërëb sàngam bu la neexee mën nga cee wax hmm. ñu ñëw ci beneen bi euh, muy li nga xamante ni dàq bi waa CNG de lutte bi dàq kii di Gris Bordeaux ak Bombardier ak Modou Lo ak écurie bi nga xamante ne mooy écurie Soumbédioune ba jiili ak ki nga xamante ne jiili bu wasaare ak soxna Fatima seen sëy beeg yooyu yëpp euh, lu mu demee noonu. waaw ni mu demee mooy dañoo dugg ci weer bu bees muy weeru avril donc euh, weeru avril am lu mu baaxoo <laughs> muy muy benn weer bi nga xamante ne ni rek moom la ñu permettre nit mu kàcc. <laughs> waaw weer boobu daal may nañ la nga kàcc boo kàccee bu la neexee nga ne non poisson d'avril la euh, donc ñu may jégalu ci kàddu yi nag euh, parce que du ay kàcc sax euh, waa sunu làmb xëy nañ tiitre loolu raje nañ Gris Bordeaux suspendre nañ Bombardier six mois Modou Lo confisqué nañ licence am écurie Soumbédioune dissoudre nañ ko donc loolu muy ay ay ay décision yoo xamante ne nii CNG du ko jël xalaatu ko fukki xelam xalaatul jël décision yooyu de un Gris kenn mënu koo raje kenn mënu koo raje ci làmb Gris Bordeaux licence la yor ab sportif la licence la yor jokk ci benn structure li ñu mën mooy ñu confisquer licence commission de discipline bu ko woowee tey bu fekkee dafa def faute bu grave commission de discipline di CRD bi moo koy woo mu ñëw ñu entendre ko bu ñu paree ñu jël rapport bi seen décision gi yëpp jébbalaat ko yu euh, moom Bombardier moo xam ne man kat dañ ma dañoo confisquer sama licence. Mm-hmm. confisquer licence am loolu lay doon walla lenn tey euh, ñu suspendre ko comme ni ñu fi def yeneen bëri mais pas radier moom mënoo koo radier mm-hmm. parce que sportif boo xamante nii tey mu ngi ci mu ngi ci ay ay kiyam mu ngi ci euh, ay ay ci période boo xam ne mu moom dafa dafa dafa dafa parce que am na licence am li mu waroon def yëpp def na ko am licence li ñu mën confisquer licence am wala suspendre ko beneen bi mooy euh, Bombardier tey mënoo wax wax rek wax ni ay kàddu lii rek ñu suspendre la ci six mois comme si euh, démocratie amul ci structure boobu ku ci nekk am nga droit manifester yow sa sa sa sa sa ñàkk ànd ci mbir mais nag lépp ci respe te ñun li Bombardier def francement ci respect la ñu ko gis donc wax na li ko naqari loolu képp ku ci nekk am nga ci plein droit nga wax li la metti ci structure saagawu ci accusé wu ci kenn xasu ci kenn donc du bi benn mbir boo xam ne war na tax ñu aj ko six mois même bu dee Modou Lo aussi mën naa ne li ma wax ci Bombardier laay wax ci moom rek donc mënuñoo confisquer licence am ci noonu euh, ci ñàkk ànd bu mu ñàkk ànd ci benn décision ba pare te xuloowu ci xeexu ci saagawu ci ŋàññu ci kenn Euh, waxu ci kenn wax cum la wartoon a wax écurie Soumbédioune aussi mënuñu koo dissoudre parce que booy Kayré moom moo wax naka su noonu ñu dissoudre écurie bi noonu loolu mënul nekk parce que euh, écurie bi personne morale la dafa am ñu ci bokk ñoo xamante ni tey CNG am na accès direct ci ñoom mm-hmm. moom coach la coach bi am na am na am na am na am na licence am wala luy firndeel moom coach la lu tax muy wàcc sur le terrain mais tey bu defoon naka su dul noonu tey CNG du du du jël décision di ko généraliser ci écurie ba mais décision bi muy jël ci moom la jëm soit ñu aj ko ba dootul wàcc sur le terrain dootul ñëwati stade ak yeneen ak yeneen loolu wala ñu aj ko moom dootul <clears throat> nekkati coach wala leneen sans dépend ci ban décision la ñuy jël mais mënuñ mënta def moom benn infraction wala mënta def erreur ñu kole ko écurie ba mu bokk te écrit ba am fa ñeneen ñoo xamante ni au même titre ko moom ay mbër yoo xam dañoo am licence comme moom ni mu amee licence coach ak leneen ak leneen donc loolu ay mbir la yoo xam ne bu boo ko gisee automatiquement dangay xam ne lii mu warta mën a nekk donc da ngay xam ne poisson d'avril la beneen bi mooy euh, Jili ak euh, Fatima bu wasaare certes ñoom ñaar nobante nañ mais nag sëy amu ca. sëñ Bas yaa may tooñ. yaa may tooñ. Ah, yaa may tooñ tax nga appel fule laa ko jotee sama sama whatsapp fule lañ ma envoyé message jii li takk nga Fatima lii di suñu mbokk internet yi am na ci ñoo xamante ne sax gis laa ñu naan bàyyi jii mooy bànneeg du ma bànneeg yaaram laa sëñ Bas moo def lépp moo jaxasee jaxaseeg Fatima. Eh, Fatima moom sama sama série la sama série bopp la waaw mais bëri na ci mbër yoo xam te sax woon nañ ma menacé ma naan ma waroo takk xale bi yow fu ma jàpp yow moom xam nga ni loppaloo mais takk ma ko loolu toujours que mooy poison d'Afrique la sëñ Bas boo ko def ah, mbalak ci gars yeeg yëpp waaw mais lu lu lu neex la daal lu ah waaw lu neex la mais dañu leen ciy ñaanal rek yal na nekk gàtt nga bu baax nga jaar fi am soxna yow it balaa at mee jeex moom it mu jaar fi am borom kër balaa at mee jeex. Euh, pourquoi pas sax mu nekk dëkk parce que yéen ñaar ay ndaw ngeen ay jeunes ngeen te yéen a ngi ci géewu célibataire gi kenn amagu ci waxaale donc yàlla mën naa dogal seen kuy bokk malka am sànni sama mbaal de bàyyi ngay def. bi <laughs> nga sànni a <laughs> sama mbaal ba nga ko sànni fenn. gars yi wax xale yi naa ne xolu kaarab bi waaye yow xol bi teer la. très express régional la. <laughs> waaw léegi daal sëñ Bass nekk na loo xamante ni lu neex la ndax askan bi ku ko gis rek euh, sa xol say sedd et puis nga xam ni euh, wasaare nekk na site boo xamante ni euh, dañuy liggéey mais dañuy kaf ree ñu ne ñun ñëpp c'est la famille quoi benn lañ muy aadama muy Ousin muy Fatima muy yow mi nga xamante ne yaay suñu kilifa gi fii ak kilifa gu mag geeg yëpp non kilifa moom cër la rek boo xamante ne yàlla boo koy joxe euh, du nañ ma ko jox wóorul waaye nañ ko ko jox moo gën a wóor du dëgg. yow waxoon nañ la ko jox waaye xëy na. Paa Jili xoolal bu ma jaxaseeg mbekk internet yi bu leen jaxa bu ma jaxasee mbekk mbokk internet yi en tout cas man seen caméraman la man maa lay caméral man maay filmel Fatima loolu la jeex na jàllal ci beneen point bi. waaw léegi nag sëñ Bass ñu ñëwaat ci beneen bi beneen bi nga xamante ne mooy tey feebar bi di coronavirus. nekk jàngoro boo xamante ne lëmb na àdduna. Mhm. jaaxal nañu ñu gis. yenn ci mbëru làmb yi muy mbëru joof yoor yi def ci act bu rafet sëñ Bass acte boobu mooy lan waaw mooy fi ñu leen doon xaare rek fi ñu leen doon xaare avant may développer sax may expliquer mbokk internet yi ñoom waa Diofior muy euh, mbër yi nga xam ne ñoo fa nekk muy Maam fàdd ak euh, Ibou njaay Obali ak Doudou Sané dañoo dajale seen koppar ba mu am ci lim bu am solo bu mu toll jënd ci seeni gel jënd ci seeni madaar ak leneen ak leneen donc lu ñu mën a jëfandikoo ci période bii ñu toll jébbal ko mairie ba mu nekk geste boo xamante ne nii ñoom waa Diofior rafetlu nañu ko mais ak lu làmb yëpp rafetlu nañu ko mais Sénégal gépp rafetlu nañu ko parce que foofu lañ leen di xaar ñoom ndax tey monde sportif bi yëpp ñu ngi koy def gis nañ CNG yëkkati xaalis jébbal ko ministre des sports gis na Lions yi yëkkati lu ci toll ci quatre-vingt-cinq millions ak lu teg. jébbal ko ministre des sports pour mu jox ko waa ministère de la santé gis nañ aussi góor gi si Dieng jàppale gi mu jàppale waa ministère de la santé jaarale ko ci loxoy euh, Aliou Diouf euh, muy euh, docteur Aliou Aliou Aliou Diouf donc sama doom baay boobu nga xam ne liggéey bu am solo la fa liggéey jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel médical bi ñiy liggéey ci wàllu santé donc euh, jàppale aussi ay ay ay ay mbokkam mbokki sénégalais yépp parce que bu jàppalee ñooñu rek jàppale na ñëpp personnel soignant bi mu jàppale jàppale na ñëpp donc ñu ko ñuy rafetlu geste boobu Diao Baldé Keita aussi gis nañ ko ci onze millions yoo xam ne nii joxe na ko liggéey bi euh, Sadio Mané aussi trente million donc ku ci nekk am na euh, lu am solo la nga def ca fa nga féete. ñi ñu doon xaar ñëpp mbër yi aussi gis nañ leen certes gisaguñu yenn mbër yi mais gis nañ waa joof Diofior ñoom ci seen commune ñu jàppale seen mairie jàppale seen bopp jàppale seen waa gox ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex Covid 19 bi donc ñu ciy invité ñëpp nag damay faral di dégg sama benn papa Etienne Ngom di wax naan mbër yi dañoo yaakaar ne chaque jour dañoo war di def ci ñoom. Mm. même bu ñu dencoon ay milliards dañoo jàpp ne dañoo war a def ci ñoom ñenn ñi nga xamante ni mën nañ ko nañu delluwaat ci seeni commune def la même chose parce que Ibou Ndiaye ak duudu Sané ak Mame Faat joxe nañ exemple un bon exemple ñeneen ñi nañ delluwaat ci seeni commune def la même chose jàppale ñi ñu war a mën a jàppale sensibilisation yi certes baax na mais li ci ëpp solo mooy jumtuwaay parce que nit ki boo ko sensibiliser aussi te amul jumtuwaay yu nécessaire yoo xam ne dana ci mën a faire face ak jàngoro ji aussi day poser problème boo ne nit ki da ngay raxasoog ndox ak saabu te amul ndox amul saabu message bi day mel ni moog zéro moo boo ko ne da ngay wut gel di ko jëfandikoo te amul gel dafa mel ni moog zéro moo li gën mooy ñu cumuler les deux mu am message bi ba pare am jumtuwaay loolu lañuy xaar ñépp. Euh, foog naa may jaajëfal bu baax a baax a baax mbëru jof yoor yi. Ibou Ndiaye Doudou saane ak euh, keneen ka nga wax. maam Fatou euh, geste la boo xamante ne geste bu rafet la. wane nañ ni kon li wolof naan foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu kon lépp lu ñu am ci làmb jëlaat nañ ko dem yóbbu ko seen dëkk bokk ko waa dëkk ba kon loolu rafet na ci mbër mu ne. gox bi nga dëkk moo xam mu néew moo xam mu bari mbaax nag sëñ Bas comme ni ma ko daan waxee du yëkkati ay millions joxe du yëkkati ay milliards joxe mais nit mën naa yor ñaar fukk nga xam ba xam baax na wala déet kon ci tabe googu nga xamante ne seen ñaar fukk boobu nga xamante ne lew na yéen ko liggéey doom moo xam mu bari moo xam mu néew ñu ngi leen ñaan ku ci nekk nga jàppale ci ñi nga xamante ne noonu lañ dëkkal sëñ Bas ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko di am kontaan bu baax a daje man ak yow. waaw Baye Djily damay sant ñëpp rek gërëm ñëpp di wax ne suñu soxna si day anniversaire le 8 avril muy Sali Dione. Sali Dione wulli wulli waat. <laughs> Euh, kooku moom kooku moom suñu soxna la soxna la dëgg la. waaw sa jëkkër sunu sunu sunu xarit. vraiment ku baax ku baax. Euh, donc ba pare man sama doom baay la. donc euh, moo tax ñu ngi koy joyeux ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire moom di ko ñaanal jàmm ak salaam ak wër. Euh, ak wérle digganteem ak borom këram yàlla defal leen njaboot ju barkeel ñu dund ba dund fu dara nekkut